tey jii mairie Ndar boo ko doon xayma li fi ki fi ne li mu fi jot a def juróom-ñaari at ban xayma ngay ngay def tey. bon ce sera assez difficile parce que dafa nekk euh, gestion boo xamee ne euh, bu muy ñëw déjà en campagne électorale waxoon nañu boppam que lépp dama koy dem wuti ji bu ngeen ma falee danaa dem. ci sama goro mu jox donc moom mi ci logique ba mu nekkoon. si goro wala si président de la République bon président goro la donc tey bu fekkee ne ne. président de la République président alors tey bu ñu la décentralisation bi koy consacré dañu noppal état transférer les responsabilités et l'administration au niveau local c'était aussi pour permettre que localement les ressources et les potentialités Mère bu fa nek ko engranger de sorte que le développement sera à la base les décisions aussi sont prises à la base base bobu non dafa am solo parce que tay bu fekkee da nga bàyyiwaat base bobu demaat ci central moi que tu consacres même l'échec de la décentralisation et malheureusement avec ces gestions et à travers leur communication politique politicienne bu ñuy wax bu ngeen ñu falaté dañuy dem indi c'est ça l'échec et que dans la communication foog naa ne war nañu ko sax éviter di wax wala war nañu ko di rus di wax donc boobu mooy un point beneen bi. mooy on verra dans quel secteur la réussite am boo ko doon wër ci ndar doo ko gis hmm. boo ko doon xool doo ko gis et puis c' est c' est assez malheureux que tey. ñu toog ñoom ñuy bàkku place Faidherbe ba ku amoon place Faidherbe bi fii lañ ko fekk ku amoon juróomi at nga pare sa juróomi at gisuñu dara nga jël ñaar yokk ci muy sept ans ba léegi gisuñu dara kooku buñ la joxaatee juróomi at mi doo fi def dara. mais banque bu lox ji suñu dara tali yi nekk. non tali mais tali euh, tali xam nga xam nga xam nga fofu la démarré loolu programme municipal. mais lolu programme municipal lolu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la commune lolu c'est l'état c'est quoi alors. c'est l'état ce sont des projets comme lu mel ne ne ay Promoville lu mel ne ay projet ay PACASEN lu mel ne projet des 10 villes lu mel ne le plan de développement touristique yooyu ñoom ñooy projet yi nga xam ne ñoo nekk di déroulé wu ni muy amee ci Saint-Louis noonu la amee ca Louga noonu la amee ca Kaolack noonu la amee ca Fatick feneen ak feneen parce que ce sont des projets de l'État même lampe solaire yi ngay gis c'est l'ANER c'est pas un projet de la commune tey li ñu xaar non non c'est c'est c'est c'est pas la commune tey un maire on s'attend à ce que mu mën am un budget lijjanti ko avec la coopération décentralisée à travers le partenariat public-privé et anyway yeneen i yeneen i cycle de financement mu mën koo exploiter ba mën ci ay investissement mais bu dee dem jëli ci état rek toog xaar état jox la nga ne waa man waroon nga ma jox fukk jox ma ñeen fukk ñu jox la ko parce que goro nga mais l'équité du territorial et le développement territorial bi ñuy prôné au niveau ministériel donc war nañ ko mën a bàyyi parce que équité territoriale c'est pas ça boo ñëwee à Saint-Louis c'est pas équité territoriale mooy nga bàyyi ay quartiers yu mel ne Pikine ñu taa am ndox fees dell égout yi jàllul nga dem au même moment à Ndiolofène wala à Balakos parce qu'il y a des adjoints au maire et le maire nga def pavage intégral presque sen sen artères yi defar tali yi daal di defar assainissement daal di ñëw taxaw foog ne ne loolu moom mooy équité sociale. kon da nga bëgg wax discrimination am. discrimination y en a à Saint-Louis et ce sont dans des projets de l'État encore une fois su fekkee ne ne tey mën nañu toog rek valablement ñu ne projet bii nii nguur moo ko def commune bi mën na koo jël capitaliser ko donc xam naa ne kenn gënul liggéey maire Diass Hmm. ndax meeru Diass aéroport international ma nga fa. Hmm. bu dee loolu rek logique boobu. ah waaw fii fii déedéet fii dama ko jégalagum parce que logique bi ñuy demee ci bilan ndax aéroport yu pare xam nga tey bu ñu jëlee tali yooyu di ko wax jël lu mel na ne ay assainissement yenn yi naan ville yi gas nañu ko fu ne état di ko def boo ko jëlee boo ko retrouver ci benn bilan maire bu boobaa kon jàpp naa ne damay extrapoler tuuti que maire ya nekk Diass liggéey na. maire ba nekk jam ñaajo ndax au moins am na fa arena hmm. am na fa centre de conférence Abdou Diouf kon xanaa kooku tamit liggéey na de la même manière kon xanaa fépp fu teer jaar maire yooyu liggéey nañ xanaa dañuy jël teer yeeg yooyu dugal ko ñoom ci seen ay bilan ka nekk jam ñaajo jël arena wa euh, conférence euh, euh, centre de conférence Abdou Diouf dugal ci bilan wam ñu arrêté parce que xam nga li état def état def nañu ko. non non non c'est pas c'est pas nihiliste tay tey doon na neex ci plateau bi. xanaa sax nga ni ma am na benn affaire sax mu def na ko fi. wa mais man gisuma ko nañu ko wax rek. nañu ko wax nañu ko wax on attend de la commune que li nga xam moy insalubrité le cadre de vie nek lu reluisant lu attractif parce que lolu mom moy mission yi première kon ndar li nga xamee ne ah ndar sen li nga xamee ne moy encombrement désencombrement la gestion de l'espace public les occupations du domaine Nous pouvons résoudre L'éclairage public Nous pouvons résoudre li nga les lieux de culte les cimetières et autres Nous pouvons ko faire li nga nous sentir qu'il au moins a pas d'abri provisoire au moins li les postes de santé Nous sentir qu'il que au moins plateau bi mi ngi tane wala réhabilitation mais nous ci maire mu toog damay dem jëli ci nguur di indi parce que loolu encore une fois man je me dis que wax ko rek mooy wax échec maire bi fi nekk actuellement parce que dañuy xaar mu indil ñu ay projets yoo xamee ne dañ koy xalaat fii le financement ak lépp lu mëntu ne mu nekk des choses yu nga xamee ne ne euh, la ressource day nek lu propre c'est quelque chose d'endogène hmm. parce que bu fekkee dañ ko yóbbuwaat jébal ko état donc tu donnes la possibilité à tous les maires ñu demaat wuti ci état boba état se fatigue te kon décentralisation amul ben njëriñ. wa légui mom dafa fi dara si projet état bi la yakar hmm. mi ngi laajaat nekkat maire bu Ndar dans deux ans ñu dem élection présidentielle président bi si nek normalement warul bokkati. Hmm. wa légui mom bu koko demee mom fu muy jëlee ay ressources. pour dëkk mooy du liggéey mooy la mu doon indi du am te amul xalaat ak capacité créer wala développer susciter ay ay ressources au plan local bu boobaa day nekk maire boo xam ne du amati benn argument bu mu la jox et c'est ça nag moo tax ñu xool bi ñuy xoolee ñu ne dëkk bii ku am xam-xam daf ci baax ki nga xamee ni ne. xelam da koy may muy lijjanti ak di régler ak di xool li nga xam ne mooy dynamique locale bi am mu ci positionné wu à ce que permettre au moins le développement que cela soit au niveau au plan local mais mu nekk lu endogène parce que aussi les théories de développement économique foofu lañ tourné malheureusement. mais non da nga ni dëkk bi ko ku am xam-xam xanaa moom amul xam-xam donc nga bëgg a wax l'actuel maire de Saint-Louis. non mais comparé à au professeur Mary Teuw Niane c'est c'est c'est c'est c'est c'est diamétral c'est incomparable. donc c'est incomparable donc le moment moo tax ngeen def seen choix. waaw un choix là. bien que nous ne sommes pas dans Benno aussi Hein? Benno c'est c'est has been c'est une page tournée Benno il faut que mëntu woon dem mënul ne man mi sax rek Benno. parce professeur Mary Nyan, Niane moom di mhm. nous sommes à deux mois des élections Quel programme vous proposez à Andal bon je sais qu'il a il est il est ambitieux et que tey ci tey ci tey programme bi parce qu'au moins pour une fois je l'ai dit que euh, ñu toog nit ñi dañ ak seen programme pare ko population bi ki ngay bu quartier intéressé peut-être da nga koy noter après mais ko programme parce que tiré nga pare da nga peut-être mais avec cette démarche du professeur dafay indi que le programme doit être participatif et que man tey ku émission bi chambre de commerce di nga fekk atelier bu mag buy déroulé wu c'est parce que moom dina joxe en premier lieu li mu xalaat li mu bëgg mais dina ubbeeku timit pour askan wi jox ko ñoom aussi seen ay xalaat mu jël ko mooñaale ko ci li nga ne programme bu mujj bi mu war présenter askan bi. ah waaw kon yéen euh, ay remplaçant ngeen indiw leen dara ci équipe bi. ñan si yéen ñun ñan. yéen waa FSDBJ comme ah. rejoindre ngeen ko xanaa au moins daa ngeen proposer quelque chose. par non on a proposé on a proposé. ñu jox ma si benn par exemple. ñun li ñuy proposé. waaw mais ce sont des choses yoo xamee ne ne <laughs> yii dafa nekk programme yoo xamee ne dañ ko amoon. pour dëkk bi concrètement lan ngeen proposé. non xam nga concrètement tey bu fekkee dama. ciy dem non dama jël au dépourvu. non non damay emboîter le pas ak lii xew léegi ndax lii xew léegi travaux yi ñi ngi déroulé wu. xam nga propre à man ma ko man je me dis que pour la ville il faut que nous mën résoudre le plan de circulation C'est essentiel la mobilité urbaine. Hmm. parce que Saint-Louis est étouffé donc il faut que nous mën au moins des solutions yoo xam dina permettre avec un très bon plan de circulation mobilité bi xaw fluide. Hmm. il faut aussi ñu arriver à un moment donné où sur le plan de de de euh, la circulation. Nous mën définir des aires de stationnement c'est faisable aménager les parkings. mais aussi permettre à ce que li nga xamee ne moom mooy euh, épave yi. pourquoi politiciens les ñoom loolu rek la wax circulation aménagement des parkings on ne parle pas de l'économie locale. non maa ngi ñëw ñoom xel dara ngi aménager parking pour qui non yo, mën xam nga tay, xam nga tay, bo xolé embouteillage bi am avant avant l'île c'est parce que la circulation n'est pas fluide. Il faut juste créer une pont, c'est tout. C'est très facile. Mais... Après, nous avons non, non, mais ah. le plan de circulation, parce que tu on pas avoir un pont, mais que la, le plan de, la, la fluidité du transport suivre. Bon, lol, il faut que définir des sens. de, Il faut, il faut définir des sens de circulation. Pourquoi y a 5 ans, vous n'avez pas pensé à ça Ah, c'est pas que vous pensez, mais Avenue Général de Gaulle, nous pas les mousses comme elle. Euh, seen jamono gënoon na neex. non mais foofu léegi ngay léegi nga gis encombrement yi taxaw lu yàgg mais jamono jooju amul woon. léegi oto yi dafa gën a yokk ñi ñi gën a yokk. ku wax loolu man kay yokkuma oto man kay déedéet man waxuguma oto bu yokk. <laughs> waxuma oto bu yokk. <laughs> Ah, léegi euh, Bamba bu jeexal émission bi.

li ci jiitu mooy les instances délibérantes dañuy defaru et que liggéey bu nit mënti sumb ak bu mu xalaat ci dëkk bi jàpp naa ne du mën a jéggi li nga xamee ne moom mooy le bureau municipal ñuy toog définir lan mooy seen ay axes prioritaires. Mm-hmm. ñu mën ko jéppal les services techniques pour ñu mën a doxal ci loolu. mais man jàpp naa ne euh, nit ku nekk da nga am sa sensibilité et puis man tey su ma koy xool sama sensibilité dama ko doon yóbbu ci li nga xamee ne moom mooy faju bi njàng mi ak l' environnement man ñett point yooyu essentiellement dañ ma intéressé dañ ma ñor. Peut-être que le maire peut avoir d'autres visions, mais Gisna aussi dans le programme, il y a le reboisement intégral des, des, des, des, quartiers de la ville avec des arbres fruitiers, mouarsak, cocotiers, parce que nous avons aussi Saint-Louis, qui gis bon amon, muy donc voilà ça aussi c'est quelque chose qui ça recoupe avec l'environnement les la mangrove des parcours peut-être des sites euh, agro euh, agroécologique mais ce sont des choses yo xamné ni je pense que mi ngi ci programme bi bu ko moñé dal défar ko ba mu baax ba digeste su fiñu watone nga tok ma dima wax xamna naa ne la wax programme bo xamné c'est un programme comme niñ ñu koy waxee ambitieux réaliste mais aussi réalisable. mais yo li nga wax ni c'est pour juste vendre. Euh, la destination Saint-Louis, hein, et mangrove, euh, cocotier, c'est pour vendre, c'est pour vendre la destination Saint-Louis. Mais, mais, mais c'est économique. Mais, le panier de la ménagère, on n'en parle pas, l'emploi des jeunes, on n'en parle pas. Mais dis-moi si c'est un programme, wala bok Déjà, déjà, euh, c'est touristique. Qui parle de tourisme parle aussi d'emplois créés qui parle de tourisme aussi parle du panier de la ménagère parce que s'il y a des activités autour des activités connexes des des sources de revenus c'est le pouvoir d'achat aussi de la du ménage qui moo ci le poumon économique de service c'est la pêche est-ce que am ngeen loo xam programme. Il pour y en a y a des des des des des plaidoyers déjà pour les pour les licences de pêche taxawu mool yi la les réhabilitations des quais de pêche gis naa ko si lu mel ne ne aussi des des centres de transformation et de conservation des produits halieutiques jàpp naa ne lu essentiel la donc gis naa ko ci et et tant d'autres ba ma fay jërëjëf mbokk yi loolu la leen euh, banlieue FM indiloon tey si émission bi nu tuddee euh, la grande table euh, la grande table doon am mbégte di dalal kii di Bamba fay bokk si FSDBJ wala bokk sax si and liggéey ndar ak professeur Mary Teuw Niane ñu war a jëm si jongante yi euh, di dëkkmal maa ngi remercier bu baax a baax technicien bi nekkoon euh, fële si gannaaw junior di nuyu bu baax a baax doyen Daouda Guissé seet équipe bi nekk fii jaajëf Bamba. merci beaucoup merci beaucoup.